dinaa filim ñan fukk man ci ay turam del jàng lii wallaahi day may gërëm dinaa filim ñan fukk man ci ay turam del jàng lii wallaahi day day na ma ismullaahi moom laa di ñaanee saa ay turam day na ma ismullaahi moom laa di شيخ قديم قادم رسول قد أحمد إي أي تلم لم نبدا محمد محمد شيخ قديم قادم رسول قد أحمد إي أي تلم لم نبدا محمد عبد القديم تجاي مودي بامبا قديم نور مودي دنا ينبا كبحكي كبحكي كبحكي كبحكي كبحكي yàlla mooy kenn ki mooy kenn ki ku baax ci sëñ bu mag bi ak ku tedd ki ku tedd ki foo nee borom Tuuba na mooy kenn ki mooy kenn ki ku baax ci sëñ bu mag bi ak ku tedd ki foo nee borom Tuuba na mooy kenn ki mooy kenn ki Xadiimun Basiir turam na Abdullaahi Abdullaahi ba tey turam la foofa indallahi yaakaari jàmm yaakaari jàmm xam la tëdd rek moo tax yaakaari jàmm ñi ak sëriñ Tuuba sax ci ay turam la tëdd rek moo tax ba tey baram njaareem baram barak bi la waa Gabon daa wax yàllay Gabon ji ba tey baram njaareem baram barak bi la waa Gabon daa wax yàllay Gabon ji bu man turam la woon ba muy baar mi tey ki lay góor xutbu zaman turam na wan banuy daar ñi la bi dam bangam mi tey ki lay góor xutbu zaman turam la wan banuy daar ñi la bi dam bangam mi tey ki lay góor mujahidum mujahidum tubaab yi ñoo ko ko tuddee ngir xas ko قرمته تضمن دنيا مجاهد تبابنا كوكتلي مرقص أروه النريب تضمن دنيا am nañu naa ko nixmatu ca gànnaaw waykat wa Moussa naa ko yaay borom taar am nañu naa ko Mbàkke nii naa ko borom ngir li mu jax ci moom ñu naa amul morom amul morom al qadim turam lahum maa ko waxit maa ko waxit mosal rëwir naa réew fii tafal raxut fii tafal raxut asnal qadim turam la turam la moom moo ko waxit moo ko waxit lafal rëwir naa réew fii tafal raxut tafal raxut asnal qadim turam la moom moo ko waxit moo ko waxit dafa lëri xaare wi fii te mbal raxut te mbal raxut am nañu naa borom yi ñetti kaala yi kaala yi suñu waa ji mooy góor moo di maami góor yi maami góor yi am na ñu naa borom yi ñetti kaala yi suñu waa ji mooy góor moo di maami góor yi maami góor yi ah di mu addanaan mooy borom jumaa ji jumaa ji kii moo di ñett sikk dal mooy waa ji mooy waa ji am nañu naa mooy tey di bal lii la borom ana ñu def ci moom bana mooy sunu borom am nañu naa mooy tey di bal lii la borom ana ñu def ci moom bana mooy sunu borom bu moom de mooy lépp moom amul ci moom morom foo dégg tey turam waxul amul morom amul morom. moom damay nëbbam amul di ma morom foo dëkk dee turam waxal amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom xardalu moom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom fartula moom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom kenn la moom maram amul maram amul maram amul maram amul maram kenn la moom kenn la moom lii la waxoon man yàlla Ibra Faati fu nga tuddee bu nga koy fàttati lii la waxoon man yàlla Ibra Faati fu nga tuddee fàttati bu nga koy fàttati tur yamul fii nen dina andi yeneen yal naa fi am ngeen ko góor tuddee ko ko kii lu ma am ci doom bu góor tuddee ko ko yal naa fi am ngeen ko góor tuddee ko ko amiin ci barke ay turam lay ñaane ku bëgg lii yal na ko am man naa ni ku nii damoo teew sama xel ma way ko ma sant yàlla am bi ma may ak dindiku ku benn bi bam na man ma man mii sama xel fan moo ko moom kàddu gi moom rek la ñeel bu fekk bam na man ma man ñi sama xel fan moo ko moom kàddu gi moom rek la ñeel kon jërëjëf Ahmadou Ahmadou li ko wax li mu li Babacar may ko ko way bi sant Bamba suñu mbër salaa wa sallama ci kaw yeneen ba ana la mu taaroo ci Bamba salaa wa sallama ci kaw yeneen ba ana la mu taaroo ci Bamba sopp borom Tuuba te di ko bëgg وبن فيلا يا مبتغي صدق مرحب بدك بني وبن فيلا يا مبتغي برم توبا يوم التمييز جدي تكون يبن تدلي ويدون بدي جيدي غدون جيدي غدون غدون فنيتك يلا فكر يا فصول sa raxmati ñam xam teraanga ku yow bu nuy gaay a ngi ñoo ngi nii yaa ngi nii awal aw dogal xel bu tooyan lu wow danga mel ni am jéego gaa yëpp yow dañuy dox di maaroo ko seenoo ka daw Mbakke ci seen bee gi day woo ci seen bee gu ñi ngi wax soo dem nekk ko bu taw Mbakke ñi am laf dañoo bëgg ndal laf ci yow di ñàkk it dañoo bëgg am laf ci yow Mbakke sarax mos ndoole ndax di jëfal la lëf rëy ñu fas bu ndoole rek ay waral mu fas Mbakke dana rab suñuy mbég yéenu ay mbég feesal luy mbég man nga defal nu man ku nu yaakaar mu di la yaakaar faw ak ay xaar yaa boobu moo ngi man ku nu yalwaan mu di la yalwaan faw ak ay xaar yaa boobu moo ngi mbakki musal nu ci wuttu lenn lu dul yow da tax lu dul yow dañu am te bu ñu xam ku mat lu dul yow dara amul yow ne ku la am yow bu faale yëf yi ربي بما يشرح الأذان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ